joyeux anniversaire à notre réalisateur le mm-hmm. grand Bira suñu xarit suñu góor suñu sunu conseiller ah il fait partie de nous mm-hmm. moom ci ci groupe Mbégte ak Teranga la bokk tey ñu ngi lay ñaanal mbégte en gudd fan wér gu yaram yàlla sàmm la suturaal la taxaw la yokku la làq la fu yàgg yeggul mm-hmm. yow sunu bos nga te ñu ngi lay ñaanal euh, yàlla nga ko yàgg feete xadisa amiin incha allah waaw mi ngi noonu Bira suñu nit la euh, du suñu collègue suñu frère waaw parce que moom moom wax dëgg yàlla dafa am relation yu particulière yoo xamante ni ku ci ne tey rek mën nga ko seede ci moom mhm. nekk nit bu baax ah, nit ku gentil sociable ba pare disponible mhm. ñu ngi lay ñaanal jàmm on te mhm. souhaite un très joyeux anniversaire notre bira national ah bira wu ñëpp ñu ngi lay <laughs> ñaanal jàmm bu bëri bëri bëri balaa nag déwén ah nga kii daal waaw mu ngi non am na Bira am na. Ah. Ah, ah am na ah, ah waaw waaw léegi kon. kon am na chéri waaw dañ koy faral ni ñuy waxee ni ñuy waxee tamit Sidi chéri Anta di ko waxee am chéri mm, euh, Siré waaw. dañ koy waxee noonu Bira chéri kii. Adama Adama ah. ngi koy nuyu Adama di ko def de très très gros bisous. Bira dundal waay dundal ba seen mbéy di baawal. macha allah euh, orange money bi. mi ngi ñëw mm-hmm. nañ ci insister. man moom nee na nee na moom daf ma woo ma daal di daw res xëy na lool la doon bañ ma dugalool ko ko mais comme da ngaa teel a wax. <laughs> man je prends mes mes mes mes oranges moo ne la je les range bien haut. déedéet déedéet jëlal pomme yi bul jël orange